yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi coppi gu gu am solo am na ci mi ngi sosoon nag ci atum 1994 ci ndigalu Serigne Saliou Mbacké euh, mu di santoon ñu lépp lu jëm ci jumaa ji ci ay taxawaay yoo xam ne sunu kàttan àgg na ca yooyu yëpp ñu di ko def muy cet gi euh, yenn matériels yi nga xam ne xëy na suñ ko suñ doole àgg na ñu di ko lu ci yàqu ñu defaraat ko lu mel ne làmp yi lu mel ne prise yi lu mel ne ventilateur yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na suñ kàttan àgg na ca lu su ëpp suñ kàttan nag ñu door koo jàllale ci sëriñ bi mu àggale ko naka noonu am na juróom-ñaari équipe yoo xam ne juróom-ñaari bis yëpp bis bu ne am na équipe bu war xëy si suba teel ñu xëy si danañ bale jumaa ji set ñu raxas ko ba mu set ñu delluwaat bu subaa ñeneen xay si xam ne par semaine ñenn ñu ne par semaine la ñuy ñëw dañ ko séddale noonu samedi dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma bis bu ne am na ñu ñuy ñëw waaw waaw ñoom ñëpp lépp rek waaw li <laughs> lépp xitma la <laughs> mbooloo mi xitma la tudd xitma mooy li mooy mooy benewal rek mooy liggéeyal yàlla boo xam ne séentuwoo ci lenn loo xam ne luy ñëwaat leen lu dul pay payu yàlla loolu mooy mbooloo mi nga xam ne moom lañ ci def naka noonu dañ koy waajal moom itam niñ koy waajale mooy euh, dañuy séddale ko ci xam nga kii bi dañ dafa nosu daayira bi dafa nosu am na lu bat euh, juróom-ñaari commission yoo xam ne ñoo nekk ci biir di ci liggéey am na secretariat général am na commission organisation am na commission culture am na commission sociale am na commission communication euh, yooyu yëpp am na commission finance ñooñu ñoo seq daayira bi kenn ku nekk ak li mu war a taxawee su koor ñëwee nag ñoom ñëpp dañuy liggéey waaye ni koy waajalee mooy dañuy def dañuy dajale borom xam-xam yi tànn ay thèmes ba am biir thèmes yooyu ñu tànnaat ci fanweeri thèmes yoo xam ne yëpp day méngoo ak jamono ji fanweeri thèmes yooyu dañ ko séddale ci ñetti cër am na ci yoo xam ne ay thèmes d'actualité lay doon am na ci yoo xam ne ay lay doon yu ñuy jàngalee yoo xam ne ci bunt lay doon ci fiq am na ci yoo xam ne laaj tontu lay doon dana am ñeent yoo xam ne laaj ak tontu lay doon am juróom-ñett yoo xam ne ay ay drus doon ay bind lay doon am fukk ak juróom-ñett yoo xam ne moom ay thème lay doon yoo xam ne thème d'actualité lay doon yoo xam ne semaine bu ne day am ñaanti ñeenti euh, tem euh, am ñett ñaar euh, ñaari leçon am benn fatwa mooy laaj ak tontu noonu lañ koy séddalee bis bi set comme tey jii ñi ngi doon waxtaan ci xasida ak Matlabul Fawzayni pour war mooy Tuuba ak fi jamono toll ak yëngu-yëngu yi ak yooyu delloosiwaat nit ñi conscientiser si leen bañ gën a dëppoo ak euh, li nga xam ne moom la waaw ñu jàngaleem sëñ bi ak li sëñ bi soxla ci dëkk bi waaw naka noonu itam saa bu ngoon jotee nii nga ko gisee nii lu mat ñeenti junni nit ak lu topp dañu fiy dogee bis bu yàlla sakk ci koor gi euh, ñooñ ñëpp dañ leen di jox ndog ngir yàlla gis nga fi nga tàmbule woon noonu fi nga nekkoon noonu ba ca fond ba côté bii itam noonu ba ca ba ñooyu yëpp dañ koy lal euh, lépp amul ku ñëw rek doog amul xëj amul seen dañ koy organiser nag ci toogaay yi ak yëpp loolu itam dafa nekk euh, l'équipe yoo xam ne liggéeyu équipe la dañ ko séddale pour mu gën a woyof lu mat cinq cent pers cinq cent cinquante personnes ñoo koy liggéey waaye nag dafa séddali ko am na ñuy xëy si six heures du matin ñoo ñooy raxas bagages yi bala neuf heures dix heures ñu pare am na ñoo xam ne ñooy ñëw préparer café yi meew yi ak am na ñoo xam ne ñooy ñëw préparer yu sedd yi comme jinjeer yi ndox yi nangam ñooñu am na ñuy ñëw pour lal lal tapi buñ paree am na ñu war a teg li ñuy dogee lépp suñ pare am na ñoo xam ne ñoo war a taxawu nit ñi bañ dugg kenn ku nekk toog kenn du yàq dara suñ paree am na ñu ne ci jamono boobu am na ñu nekk ca waxtaan wa di organiser foofu foofu it ba jataay ba du am du am benn jaxasoo naka noonu fuñ paree gis nga fekk nga leen fi moom ñi nga xam ne ñoo noonu laal li ñoom lalli bagage yi Euh, yi nekk weer ñu boole leen yi nekk encassable ñu boole leen dara bañ a jaxasoog moromam ñu yóbbu leen fañ leen war a raxase ñu leen war a raxas bu ñu egg fekk lépp tege rek ñu raxas suñ paree ñu raxas fi nga xam ne foofu lañ doon doge gis nga bi ngeen di jóg yéen a gis ci seen ginnaaw ñu ngi ñu ngi nettoyé avant ñuy naafila day fekk ñu war a dellusi di naafila dana fekk ñu raxas ko ba mu set wàcc suñ paree nag ñu defaat beneen commission sécurité boo xam ne ñooy sécuriser naafila gi noonu la ñuy liggéeyee par par bis ba koor gi jeex ñu ba léegi itam ñoo organisation armel yi armel yi morgue bi ak jëmmi beqin ci boppam euh, moom itam def nañ ko organisation bu am solo def nañ fi benn logiciel boo xam ne ku ñëw danañ xam fu mu jógee ñu ko fi ku ko fi indi numéro téléphone am ban par fan lañ ko denc ci ban numéro moom ci boppam bi mu faatoo lan moo ko faat yooyu yëpp dañ koy xam ña fa nekk itam di toppatoo ñu di leen saytu di leen defal ay formation di xool li ñuy def di régler itam seen digganteek nit ñi ba euh, du ñu fay lu nit ñi lu ëpp wala nangam dañuy régler fay gi tënk ko ci benn kenn ku nekk bu ñu fayee ku ne lam ci am ñu jox ko ko ci tënk daal noonu lañ organiser organisation bi yëpp loolu nag jotewul daal ak yeneen yi nga xam ne sëñ bi mi ngi leen koy mi ngi ñu koy def loolu mel ne sëñ bu màggalu tubaa gan ñi nga xam ne ñooy kilifa yi diine yi ñoo leen di dalal lay lekk sëñ bi am ay gani boppam ay kilifa yu fi ñëw président de la république wala kilifa gu mag gu fi ñëw goo xam day laaj ñu taxaw ñiy ñëw kilifa yi ñëw man leen a xam xàmmee di leen dalal boobaat sëñ bi da leen koy sant ak yeneen liggéey comme jumaay Masalik bi ñu koy ubbi comme jumaay Poroxaan bi ñu koy ubbi comme université bi koy ubbi yeneen yu bari yoo xam ne sëñ bi da leen koy def loo mais ci tënk daal daayira la boo xam ne ci euh, loxoy kilifa gu mag gi rek lay nekk moom mooy seet lu mu koy def loo ginnaaw bu liggéey bii jàllee kon nag ñu ngi ñoo ñoo lay dalal am mbégte di la dalal di la wax ni itam liggéey bi comme ni nga ko gisee am na ci biir ab télévision boo xam ne xëy na amagul licence xam naa boo ñëwee rek licence bi dina ñëw <laughs> am nañu <laughs> waaw incha bi visité ngeen ko am nañ fi benn boulangerie mu ndaw boo xam ne moom ci la ñuy defaree mburu yi ak yu mel noonu yan yi am nañ euh, am nañ benn chambre froide boo xam ne ci la ñuy denc yi ñu war a soxla boo xam ne am na capacité trente cinq tonnes ak ak yi nga xam ne daal soxla nañ ko yëpp bu dee ci morgue bi itam am nañ ñaari ñaari chambre froide yoo xam ne bu ne benn bi am na douze tiroir benn bi am na quinze tiroir yoo xam ne moom tam pour ñu way dawli la ak yu ni demee foo ca baqee itam ñu ngi fay def foofee dafa manqué ndox trop ba tax na ñu ngi fay def benn forage boo xam ne ni commencé woon nañ ko ba fi mu nekk nii mi ngi sori xam naa équipement yi bën na ba pare sax équipement yi rek moo ci des euh, koor gi nag day def ba xasee egg si moom def ñuy tënk ba li ñu am lépp ci koor gi lay dem bu jàllee nag luñ luñ luñ dajalewaat rek def ko ca loola ba ba muy àgg incha allahu taala ci tënk daal loolu mooy liggéey yi nga xam ne moo fi jotee gën a nekk euh, di la sant nag bu baax ci tànk yi nga xam ne jóg nga ko ñëw fii di rafet itam nag rafetlu itam sa taxawaay ci réew mi di la sant di la gërëm jërëjëf. <laughs> ma am chance su découvrir lii parce que xam nga dañuy dégg tur bi rek ku nekk day ñëw dugg ziyaar rek. bon ñun ñëpp daañu imagine ni am na une grosse machine derrière moo tax ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi di nuyu suñu wayjur suñu suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru nga xam ni mooy xalif général di ko ñaanal yàlla yokk wéram talam parce que mu yàgg fi suñu njëriñ la ah di nuyu aussi kilifa yi fi nekk yëpp ci ñi nekk seen xilifa xalifa jur képp ko fi doomu soxna daal ñoo ngi lay nuyu di la ziar di ñaanal ñëpp nag ci weer wi yàlla nangul ñu suñu koor nangu suñu ñaan parce que loolu moo am solo ah tey nag dangeen ma beral loxo parce que lii lu rafet la lu nit ñi war xam la parce que day wane ni la ñuy gis màkk di yéemu di ko gis Medine di yéemu am na fii te xamuñu ko woon moo tax bi mu waxee affaire télé bi ma ni xalifa Sall président de la République di ngeen am licence incha allah parce que xam nga màkk ju ju jumaay màkk ak Médine dañ yor seen télé yéen ñiy seetaan xam ngeen ko su la neexee seetaan màkk su la neexee seetaan Médine donc kër yàlla bu ko mën surtout fii c'est normal que ñu jox ko licence parce que licence da ngay def service public lépp lu jëm ci askan wi xeet wi ci li muy dunde ci na muy dunde ak léppam nga di ko xamle di ko wane fii mu jëm ci diine jëm ci suñu kilifa c'est Cheikh Ahmed Bamba ak diine ji ma ni kooku neexalu leen ci kenn on vous aura passé un par force la parce que dafay dugg ci li ñuy tuddee service public en man day gàlloo naa ko parce que nag barkeelu barkeelu la